auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo leen di nuyu di leen siyaare noo ci juróom benn fukkeelu jataay ak juróom ñaar ci téereb Xalimag ak leer noo ci xasiid ak jaawartu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko ciy tudd di ko sante boromam mooy donnloo gi ko sunu borom donnloo lislaam mu wax ne sunu borom bi nga xam ne mooy aji leeral sama suuf jox na ma lislaam ca jamono ya may nekk ci tukki bi mu dellu wax ne yàlla jox na ma leeruk làmmiñu arab ak alxuraan ci jamono yi may liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te nekkoon ci nasaraan yi nazaa lil islaam inda xurbati ladal jazairi muniiru turbati nusi nusi ali nuuru lisaani kitaab azmaana xidmati ladaa ahlil kitaab tukkeem boobu di géej gi yàlla fàggul na ko ci ay may yu rëy lool mayam yu baree bari foofu la ko sunu borom joxe ndax natt yi mu ko teg mu sori lool aw nitam diir bu yàgg dara warulu ko lu dul bëgg yàlla akub yonenteem mu jàng alxuraan fu mu toll di bind ay xasida ñu ko wër ñépp di ay noon yoo xam ne amuñu jenn yitte ci moom amuñu jenn yéene ci moom judul lor ko lépp lu ñu def rekk mu daal di koy muñ ak lu mu metti metti loolu tax na laataa mu fay jóge sunu borom jël na jël na la ko soob ci ay xéewal ak may jox ko ko te ma yooya ñu ko jiitu woon amuñu ko ndax lu mel ne lim def moom ci jëmmam rek la yam ba tey mu tëje xasida gii di jaawartu wax ne yàlla gindi na ma seytaane sori na sama dund jëm ci keneen hadaani allahu wa zahzaha llain ila siwa umriya habadal muin loolu moo dikkoon ci tàmbalik xaside gi waaye moo dikkit ci mujj gi seytaane sori na ko di ko jege fenn ndax ku dem ba dëkk yàlla moom seytaane amatul ci moom wenn yoon mënul ci moom dara ci zaahir ak ci baatin xasida nag ku ko mokkal dina texe bokk na ci njariñam ku ko mokkal texe Sëriñ Suhaybu Mbàkke wax na ko ci euh, xorotul ayn ba tey am na bis ku ñuy wax Abdullahi ibnu Salah euh, ibnu Salahuddin at daa ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko Abdullah am na fi xasida goo xam ne ku ko mokkal ñaari malaaka yi duñu ko laaj ci bàmmeel Abdullahi tàmbali di tudd yàlla di laaj naan ana xaside gi ana xaside gi dinaa ko mokkal mokkal loo ko samay doom mokkal loo ko samay jigéen mokkal loo ko samay jaam Sëriñ Tuubaa teg kaalaam ca gémmiñam gu tedd ga daldi muuñ ne ko xaside gi mi ngi ak Muhammadu Lamin boobu sëñ Moodu Lamin Jóob Dagana la ko jubloo wax ne ko moo yor xaside gi loolu sëñ Moodu Lamin moom indi na ko ci Irwaa un kon mbokk yi xasida jaawatu xasida gu mata fanku la di xasida gu mata bàyyi xel noo ngi am foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.